Bilaal ibnu Rabaax dafa am ñu jaaxle ni mu attaché ci yonent bi yonent bi dem rekk mu tox dem Sham ñu ni nag ñu delloo ko ci atifiya wax ni yi mu daan bokk ak yonent bi li mu daan bokk ak yonent bi bëtam moo mënatul tegu ca barab yi ma laaj ko sëñ Babacar si ni ko dañu wax ni dafa dellu ci atifiya mu ni ma mukk mu ni ma kàttanu ruuxam na loolu moom yéene na dundam yépp servir ci yonent bi waaye la Sidna Omar wax ni bu yonent bi demee rek crise bi dana judd te dana lekk ñépp moo ko tax a génn nee na ndax mën na serwiir yonent bi waaye mënu fa toog rek di àtte ay conflits yu dul jeex waaw di àtte conflits yu dul jeex xol yu bon xol yuy fiirante xol yuy añaanante te kenn ku ci nekk yàlla bind na la mu lay jox ci ci ci sa jë loolu la mënul mu ne nafaf taxu benn yoon rek mu ne ma lool rek la te loolu jàddu na ci bilaal ndax gëmam ci yonent bi mën na ko may lu nekk waaw keroog bi abu sufiyaan di tuub si ci yonent bi ndax jaaxle abu sufiyaan moom jaaxle ko tax a tuub si waaye gëm taxul ndax moo doon uh, gouverneuru Makka ñépp ragal ko waaw rekk muy gàntal wàllu yonent bi di ko gàntal rek ba ñépp romb ko fi wuy ji yonent bi mu jaaxle nag ah gisatul mag mu mu waxal mu daldi fabu ni dama ngay dem joxi sama bopp yonent bi naka la ñëw Madina mag mu ko seen daw wuti koo dugg ni kii kay du dem ci yonent bi mukk Bilal gis ko rek daldi dem jël ko jàpp ci loxoom ba ci kanamu yonent bi sukk mu sukk ak ku xam Abu Sufyaan waaw mu sukk mu sukk ci ku xam Abu Sufyaan dal di jàpp mbaggu Bilaal ni ko yaa mel nii léegi ah mu ni ko juum nga ci sa waxit del wax ni yàlla la melal nii léegi waaw ni ko ndax tawxiid la xam nga loolu ci ko xam Abu Sufyaan ak passé ak éloquence am ak pouvoir am ak méchanceté bu demee ba laal di ko gàgganti ah loolu kéemaan la loolu kéemaan la pour wax la ni rek yonent bi ku nekk ak moom atu yàlla te soppeekuwuloo danga al ko yàlla xam na ko su ko defee ndeysaan xam nga dafa daan nodd ñiy nodd léegi dañ koy roy am na nodd yu neex yu ñuy def nga xam ni boroom dafay nodd ba nga defee ni dafay nelaw sax <laughs> yàlla xam na ko ñu ni dañuy roy bilaal <laughs> te bilaal noddam demewul noonu nitu yitte la woon bu dee nodd ma nga ca lox ya waaw allahu akbar di woon nit ñi allahu akbar allahu akbar ñii ñoom di nodd ba nelaw ni bilaal loolu la daan def leen bilaal kay deful loolu talu ko sax wallaay ndeysaan bu dee nodd ma ngaa woote rek ndax yi tij ah tabarkalla tabarkalla mu mel na kon xol yi xol yi di ko surveiller baax na